kon Serigne Cheikh Bousso moom i tey jii moom lañu ñu fas yéene àndal ci jataay bi mu àndak ak nag ci laaj yi nga xam ne moo faroot bàyyikoo ci mbokk yi kon dañu koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo ba noppi nag ñu door a dugg ci laaj yi nga xam ne ni moo faroot si bismillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natuubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسوله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين ورضوان الله على شيخنا وقدوتنا الشيخ الخديم dil mawaahibi aljalila wa darajaati alaaliya subhaanaka allahuma laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim sabbit janaani wa saddid mantiqi waqini laxnan bi idaami ma qad kaana wajudaana amma baadu fa ayuha al ixwatu alkiraam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu lislaam bu sell boobu di leen ndokkeel ci weeru màgg wi ñu nekk muy sahrul amaani wal muna wal fayadaan di ñaan suñ borom subhaanahu wa mu defal ñu tawféex ñu mën a màng mboolem li ci nekk ci ay yiw ak ci barke di sant suñ borom subhaanahu wa taala mi ñu defal tawféex bañ mën a fekkewaat jataay yi xam-xam yu am solo yi nga xam ne moom la daayira bi di taxawal ci barab bu sell bi di ñaan ñu daje ci ngërëmul sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu te yàgg koo taxawe di siyaare mbokki jullit yépp di jéetal ci siyaare bi alxalifatul am al cheikh sidil muxtaar xafisahullahu taala wa raa na ko yàlla yàggal ci suñ kanam te àggaleel ko mbooleem ay mébétam te njàgg ci ginnaawam di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi di leen siyaare bu baax di leen ñaanal suñu borom taw defal leen tawféex ci liggéey bi ñu leen fi dénk di rafetlu bu baax jéego yi nga xam ne daayira bi mi ngi koy def ngir tisaare xam-xam ak tisaare wooteeb sëriñ tuwaa bi ci àdduna bi di ñaan ñu daje ci ngërëmul Serigne Touba te njàgg fee daje eh, ni ko Serigne Cheikh Ahmadou bu sa waxee waxtaan wi tey ngeen ko miine ay tontu lay doon loo xam ne nii day doon ay tontu ci laaj yu jóge ci ñenn ci sàkkati xam-xam yi ak ñenn ci mbokki taalibe yi ñu am luñ bëgg a leerlu ci seen mbirum diine di xam la ne mboolem tontu yi ñu fi jéem a tontu yëpp yi ci ëpp ñu ngi ko sukkandikoo ci alfiqhul maliki yi ngir jëfandikoo ndigalu Sëriñ Tuubaa li ñu digal ci ñu tënku ci ngir moomu di am yaakaar ne lépp lu ci nar a wàññiku sëriñ bi ma àndal dana ko mën àggale incha allahu taala yàlla nañu yàlla defal tawfeex jërëjëf sëriñ Cheikh ci nuyu bu am solo bi kon dañu daal di dugg rek ci laaj yi nga xam ne ni rot si na fi kii moom day laaj ne laaya ji sunu borom wax ci alquran laa bëgg ñu leeral ma luñ ciy jublu mu ne suñu borom daa wax ne wa in faatakum shay'un min azwaajikum ila alkuffaari fa aaqabtum fa aatu alladina dahabat azwaajuhum mithla ma anfaqu nee na muy laaj laaya ji lan lay tekki asalaamaaleykum sëriñ Seex laaya boobu mu ngi ci sootul mumtaxana muy laaya boo xam ne dafa dugg ci biir aayaat yoo xam ne suñu borom subhaanahu wa mi ngi ciy wax ak jullit yi nga xam ne ñoo gàddaayoon ñëw diina am ci ñoo xam ne dañoo bàyyi seeni soxna fañ gàddaaye am ci ñoo xam ne seeni soxna dañu fekk si aaya bii nag borom xam-xam yi wax nañu mi wàcc ci ku ñuy wax ummul xakam bintu abi sufyaan dafa gàddaayoon ñëw diina ginnaaw bi mu tubbi génn ci lislaam ba geneen góor takk ko koo xam ne ci bani saxif la bokk aaya bi nag ni ko borom xam-xam yi waxe bari waxee ci tafsir day wax ne maanaam bu fekkee kenn ci soxnay jullit yi génn na e, fekk yéefar yi nee na kon bu ngeen xareetee ba gañe am ay ay màng màng yooyu ñu am yi ngeen nga am da ci am cër boo xam ne dangeen koy jagleel boroom kërub ka yoroon soxna soosee ngir lam ñàkkoon ci moom mu mën koo dabu ci màng yooyee <clears throat> loolu ñu bari ci boroom xam-xam yi loolu lañ firee aaya boobu bismillah jërëjëf sëriñ Cheikh ci leeral yooyu kii tamit moom day laaj ne kañ lay dagan <coughs> ci maamum mooy ki ñu jiite kañ lay dagan ci moom mu jullee ci kanam imaam moo xam jullik ajjuma la wala du jullik ajjuma waaw maa moom li ko sant mooy muy roy ci ilimaan ji e, di nekk ilimaan ji lu mu def mu door koo def bokk na ci teggi ni roy ci ilimaan tam nga féete ko ginnaaw bu fekkee ñaar doo ngay julli ni ngeen ko xamee ke jiit ki jiite féete nday joor maa moom bi féete càmmooy buñ matee ñaar nag ilimaan ji nekk ci kanam ñoom ñi maamu yu ñu se ñu nekk ci gannaaw loolu mooy li war a am kon nag julli ci kanam ilimaan ji loolu wërta mën a am li feek ngànt amut darura rek moo ko war a waral ni ko boroom xalil waxe wax ne wa salaatin baynal asaatiin aw amaamal um-, imaam wax ne bokk na ci yi nga xam ne dañ ko sib booy julli ci jumaa ji wala jàkka ji ngay julli ci diggante kano yi diggante kanu ak moroom ja kenn waru fee julli ndare ngànt lu rëy moo ko waral ni ki noonu tam kalam ilimaan ja moo xam ne ngaa denk ci kalamam ci biir jumaa ji ci kanamam wala nga dem ba génn jumaa ji sa nekk ci kanamam loola li fekk ngànt amul te mooy bu jumaa ji feesee dell dell ba amoo fenn foofu mën a toog nga door a taxaw foofa foofu lañ la koy maye waaye bu dul loolu rek nga sàppe ci ginnaaw ilimaan ja mooy sunna moom lañ sàkku ahsanallahu ilaykum kii moom day laaj ne jigéen a ngi joo xam ne baayam daf ko may koo xam ne nii bëgg ko ne na jigéen ji nag day tere boppam góor gi bu góor bu góor gi sàkkoo du ko jox boppam te nee na fu mu toll da koy ñaan baatam muy laaj ba xam loolu lu ci àtteb ci jëf jooju waaw loolu li ci àtteb mooy passé àq la joo xam ne suñ boroom ci loxol góor la ko teg muy boroom kër bi mbooleem aayaat yi ñëw ci alxuraan di wax ci mbir moomu euh, xitaab bi góor ñi lañ ko jëmale ni ki noonu tam lañ ci gis ci hadiis yépp bu yonente bi wax góor ñi lay waxal ci wet googu bokk na ci loolu masalan waxi suñ borom dim ne yaa ayyuhan nabiyyu idha talaqtumu nisaa fa na li iddatihinna gis ngeen wax ji mi ngi ko jëmale góor ñi mu ngeen dee bàyyi seeni soxna na leen na leen bàyyi ci waxtu woo xam dañ ma tàmbalee seen idda kon euh, jigéen amul àq ci paseem boppam paseem yi ci loxol góor la ko yàlla teg <coughs> teewul nag euh, suñ borom subhanahu wa taala jox na àq jigéen ci bu demee ba nga xam ne sëy bi mënatu caa wéy mu def li ñuy wax al Eh, te mooy jot ci boppam moom la wax ne falaa junaaha alayhima fii maftalat bi jigéen ji bu demee ba sëy bi amatu ci lu mu bëggoon wala ngaañ di ko ci fekk loolu fekk ko ci mën naa sàkku ci boroomam këram ne ko dama laa bëgg a jox nàngam ngir ñu yamale suñu ànd foofu ni ki noonu tam jigéen ji am na àq ci mbir mi bu fekkee boroom kër bi nanguwu ko nanguwu ko noonu te ma ngi cay loru mën naa yëkkati mbiram yóbbu ko ci àttekat yi booba buñ gëstoo ba xam ne lor dëgg-dëgg la ci amee boobaa xaadi bi sañ naa tàggale seen diggante ñoom ñaar waaye nag mm, jigéen jekki-jekki sàkku ñu bàyyi ko ci loolu ngànt maanaam loolu lor joo xam da koy dal loolu lu yonte bi alayhi salaatu wasalaam tere woon la waxoon na ni gépp jigéen joo xam ne laaj na boroom këram mu fase ko te amul benn ngaañ boo xam ne moo waral loola xanaa xëy na daa dem ba bëgg a soppi aw doxin rek nee na kooka jigéen joojee xetu àjjan lu ko xeeñ kon loolu ab tëkku la boo xam ne ni jigéen balaa sàkku boroom këram di ko bàyyi war naa dem ba nga xam ne loolu moo fa sës ndax suñ boroom subhanahu wa ta'ala moo daganal passé waaye daa wax ne mboolem lim daganal moom la ci gën a bañ abu xadul xalaali ilallaahi atalaaq kon nag muy góor gi muy jigéen ji kenn ku ne ci ñoom ñaar rek waxtu wu nekk li ñu war di def mooy taxaw ci loo xam ne day tax sëy bi di ma a wéy waaye kenn waru cee sabablu loo xam ne day tax sëy bi yam foofee masala mii nag mu tollool tey e, jigéen ji nga xam ne boroom baayam daf ko forcé may ko kum bëggul kooku sax na ci xadis ne sañ naa bañ a nangu wax nañ ne ci jamono yonente bi alayhi salaatu wassalaam am na jigéen xele bu ndaw bu jigéen bu ma sa ñëw ci yonente bi ne ko sama baay dafa ma may koo xam ne bëgguma ko ngir bëgg cee yëkkati dara jaam bi alayhi salaatu wassalaam ne ko am nga sañ-sañu tànn bu la neexee sëy bi wéy bu la neexee ñu yemale ko foofu soox na soose muy xale boobe daal ne kon de tànn naa sëy bi wéy sax waaye dama bëggoon sama mbokki jigéen ñi jàngaale ci rek xame ci ne am nañ sañ-sañu bu ñu leen mayee kuñ bëggut ñu dindi ko teewul nag ci fekk moom li ñuy jàng mooy baay sañ naa forcé doomam ci jigéen maye ko waaye nag buñ ko mayee tam ci li fuqaha yu bari wax mooy bu fekkee soox soxna sa bëggul sëy boobee am na sañ-sañu dem ci xaadi bi mu tàqale leen wala mu def li ñuy wax alxulon te mooy am lu mu yëkkati loo xam ne da koy jox borom këram ne ko dama bëggoon nga bàyyi ma wallaahul muwaffiq lis sawaab ahsanallahu ilaykum sëriñ Cheikh kii tamit day laaj ne benn waaye ngi nii boo xam ne dafa yorul dara nee na mu sàcc tabaski mi nga xam ne ni moom la dëkkandoom bi jëndaloon ne dëkkandoom bi nag ku yor la koo am alal la mu sàccee am tabaskeem dem ray ko nee na ba tabaski ki jàllee nag mu xamal waa ji ne ko sa tabaski bi man maa ko sàcc nee na waa ji ne ko may naa la ko muy laaj ba xam lan mooy àtteeb loolu ndax dana ko doy tabaski wala daal luñ ko ci mën a leeral ci loolu mu def. waa kooku de xam naa ne <coughs> day mel ne ñàkk a dégg àtteeb tabaski xëy na moo ko yóbbee ci def loolu ndax tabaski sunna la. te sunna la soo xam ne sax wax ne ki muy war mooy koo xam ne danga ko mën def te la ngay la nga koy defee muy alal yi nga jënde ma at ma yépp doo ci am soxla loolu nag kon mbir la moo xam ne na la waaye diisut ndax koo xam ne am nga alal joo xam ne mën nga koo yor ba at mu jeex doo ci am soxla kooka rek la war ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy tabaski daa rey ñaari gàtt wax ne benn bi reyal naa ko sama bopp bi ci des reyal naa ko mboolem ku bokk ci sama xeet wi te mënoo am loo tabaskee kon nag kooku lim njëkk a def njuumte la jërul woon muy dem di jël yëfi jàmbur ginnaaw amul lu mu tabaskee mën naa xam fekkee ngir yàlla rek mooy tax muy def du tee dana am tuyaaba yi ñuy tabaski li ñu am te bàkkaar du ko ci fekk amma mi lim def nag moom loolu foofu alal jàmbur lañ koy jàppe te loolu ci lislaam santaane ñu bari xam nañ ko mooy wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaalan min allahi wallahu asiisun hakim loolu mooy atteem ku jël alal jàmbur bu ca sàrtee ca war sàrt dajee sàrt yañ sàrt bu ca dajee xaddu bi ñu ko war a teg mooy dagg ab loxoom waaye nag kii ginnaaw bi ñu laataa yëkkati att yàlla dogal na boroom alal jéggal ko kon dañoo wax ne bu loolu xewee ci Eh, mbir mu mel noonu kon kenn du dagg loxoom dagg loxoom wàcc na ko kon waaye nag moytu bu ëllëgee muy te jëf ju mel noonu ndax bu fekkee bëgg tuyaaba ko si yóbbu woon na xam ne du ca am tuyaaba te it mën na saa jële bàkkaar te it bu ko borom alal jéggalul woon mën nañ ko tatbiix ci moom mooy eh, appliqué ci moom atteb ku jël alal jàmbur te mooy dagg ab loxoom jërëjëf Serigne Cheikh kii moom day laaj ne sëriñ bi wax ji mu wax ne aleykum bilmalikiyati fa innaha mutaharatun munawwara lay laaj fan la ko sëriñ bi bind maanaam ci ban téere ci téere sëñ bi la ko lañ koy fekk waaw wax jooju de mooy aleykum bilmalikiya ba mu àgg wax la joo xam ne fekk nañ ko ci eh, bataaxel boo xam ne sëriñ bi radiallahu taala anhu moo ko bindoon kenn ci taalibeem yi te ba mu koy bind ma nga ubbee lettre ba ci al muridu saadiq al muhibbul adib nga xam ne kon jàpp nañ ne taalibe bu amoon wàccukaay la ci moom mu mel na da ko ci doon laaj ay laaj aju ci wàllu feq ba laaj ko ci lu aju ci basmala ab atteem ak yu mel noonu ci wàllu julli sëriñ bi nag tontu ko ne ko bu fekkee maa ngi leen dénk yéen mboolem taalibe yi ngeen tënku ci mashabul maliki yi ndax mashab bu sell la bu laab la man nag am naa sama jagley bopp yoo xam ne nii yàlla moo ma ko jagleel bu ngeen gisee ma koy def te gusi leen ko ci alfiqhul maliki yi yéen na ngeen tënku ci fiqh bi rek almaliki yi loolu laa leen dénk bu leen ma ca loolee loolu buñ demee ci lettre boobu sëriñ bindoon taalibeem boobu dañ ko ci fekk te bataaxel boobu bokk na ci bataaxal yi nga xam ne moom la Cheikh Abdul Ahad radiyallahu taala anhu dajale woon tudd ko waxatu te Serigne Abdul Ahad ibnu Cheikh Souhaïbou bu bind ko ci loxoom Serigne Abdul Ahad moo lu woon ko ci atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñeent ci gàddaay gi xam naa du sori atum 1974 jàpp 1975 majmuwa boobee boo demee danga ko fekk ci xëtu téeméer ak ñeent fukk ak ñeent boo demee da nga ci fekk wax jooju kon muy wax ju wér-wér joo xam ne sëriñ ab Ahad moo génne lu loon Cheikh Abdul bi bin Cheikh Souhaïbou bi mu bind ko ci loxoom sëriñ bi santaan ñu mool ko ci daara kaamil jërëjëf sëriñ bi kii tamit day laaj ne lan mooy àtteeb gone goo xam ne dafa sàcc alali jàmbur waaw bokk na ci àttey e, géttan ku sàcc daa am suloot yu bare bare yu ci aju bokk na ci sart yooye moom jëmm ji jëf-jëf jooju na doon jëmm joo xam ne am na xel euh, kàllafe na waaye bu fekkee amul xel wala kàllafee gut kooku kenn du ko togg jëf te gone googu ñu wax bu fekkee kàllafee gut ci mandarga kàllafe yi nga xam muy ñetti mandarga yooyu nga xam dañ ko jàng ci téere yi bi ci gën a fés di mu am fukki at juróom-ñett bu fekkee yenn ci mandarga googu nekkul ci moom kon loolee mu def yoon du ko ca topp ndax yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax na ci benn xadis ne rufial qalamu an salaasin an sabiyi xataa yaxtalim wa an il majnuuni xataa yafiiq wa an il naaimi xataa yastayxis ñett a ngi ñoo xam ne ni kenn doon togg jëf kenn doon topp jëf muy gone goo xam ne ni eh, kàllafee gut ak koo xam ne xelam dafa manki feeg ma ngi ca lool ma nga toll ci loolee ak koo xam day nelaw feeg yeewoo gut ñooñu seeni jëf yoon doon ko topp waaye nag teewut xale boobu waris na koo yar ndax buñ ko bàyyee mu tàmm loolee mën naa dem ba bu doonee mag di ko def te boobaa li nga xam ne moom la yoon santaane ci moom danañ ko bu dee dëkk buy doxal yoon yoonu charia al islamiyya danañ ko def ci kawam te boobaa bu fekkee bu fekkoonte ne teel nañ koo yar teel koo jaaj ba mu bàyyi jikko ju ñaaw jooju mën naa am loolu du ko ci fekk waaye bu ñu ko seetaanee rek wax ne kenn waru ko def dara ba mu tàmm ko mën naa am bu doonee mag di ko jëf te boobaa du ñàkk bis yoon dal ci kawam te booba seetaan koñ ko seetaanoon ba mu doonee ndaw moo ko yóbbee loole moo tax gone yi dañ leen war a jéem a teg teel tàggat ci jikko yu rafet ba bu ñu màggee tàmm ko mu yomb ci ñoom hmm. asaabakumullahu sëriñ Cheikh kii day laaj ne dafa bëgg ñu teqaleel ko ñaari baat yi muy baatub assuufiyu ak baatub almutasawif waaw ñaari baat yooyu de mel na ne dañ leen jëfandikoo lu baree bari ci menn maanaa xanaa daal fekk nañ ci waxi al cheikh abdul xaadir al jaylaani yi ci téereem bi mu tuddee al ghuniya mu tàqale leen wax ne al mutasawif bu ñu ko waxee mooy kii door a sóob ngir mi nga xam ne soreegu ci ki nga xam ne dem na ba sori lool ci ngir mi nag kooku la ñuy wooye as dafa mel ne sëriñ bi radiyallahu anhu muy sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu tam moom ku mujj kooku la jël di wax ak moom ndax bi muy xamle kan mooy kan moo tënk ci ngirum tasawuf baat boobu la jëfandikoo ci masaalikul jinaan moom la wax ne wal xaasilu suufiyu aalimun amil bi xilmihi xaqiqatan walam yamil fasaara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari nee naa suufiyanke bu ñu ko waxee dëgg-dëgg mooy nit koo xam ne am na xam-xam ba noppi di jëfandikoo xam-xamam boobee nee na kooku luy tuddee moom suufiyanke dëgg-dëgg koo xam ne mu ci dëgg jàpp na am na xam-xam ma sëkk te it xam-xam balam ci xam lépp mu ngi koy jëfandikoo ba mujj day nekk koo xam day sell ci mbooleem ay nax-nax xolam fees dell ci ay xalaati yu rafet ak xalaat yi mi suñ borom ji sëriñ bi moom nee na kooku mooy as suufi kon moom daa mel ne mustalax boobu lay faral di jëfandikoo ci ay mbindam. kii moom it day laaj ne dafa bëgg ñu tenqaleel ko ñaari baat yi muy baatu sëy bu ñu firi ak baatu fase ne léeg mu dégg ñu wax ne sëy bi dañ koy firi léeg mu dégg ñu ne dañ koy tas wala boog dañ koy wala baatu fase mu bëgg ne teq ñu teqaleeg ñaari baat yooyu bu fekkee am na wuute. waaw ñaari baat yooyu de daanaka lay juddoo ci ñoom sorewut ñoom ñaar ndax ku ne ci ñoom ñaar bu amee rek ab sëy dafay daldi yam waaye na teewut ci wàllu fiq dañ leen di tàqale ci ay anam yu bare bari bokk na ci anam yi leen di tàqalee mooy buñ ne at talaaxu muy fase dañ koy seddale ñaari xaaj pase moo xam ne su na koo fayli ak pase moo xam ne bu xasee am sëy bi day daldi yam foofee faw bu lu ñu mën a fasaat dañ koy fasaat pas-pas bu yees ñu door a mën a àndaat buñ nee firi nag moom loola eh, day doon loo xam ne day daal di yegg ak yamale sëy ba foofa kenn dootu ko mën defaraat kon wuute nañ ci anam googu parce que léeg ñu mën koo defar waaye lu ñu xas firi moom kenn dootu ko mën defaraat xanaa ñu fasaat pas bu yees benn ngoog bokk na ci leen tàggale itam ñaare parce que luñ firi mi ngi am ci loo xam ne pas-pas ba daa am lu ci lu ca manqué woon jëmmi pas-pas moo amoon lu ca sikk masalan bu fekkonte ne ñaari ñi nga xam ne ñoom lañ boole fas muy góor góor gi jigéen ki euh, dafa am loo xam ne amoon na seen diggante boo ñu wan a sëy masalan jege ñaante te xaj na ko doon fas ko fas ko boobu boobu sëy dañ koy firi te buñ nee pase nag moom li muy amee mooy sëy boo xam ne bu wér-wér la nga xam ne façon nañ pas-pas yàlla ca sart yi sartu ñëpp mat na ba la pas may door a ñëw kon loolu tàggale na leen kon firi ñu ngi koy def ci loo xam ne daanaka amuloon fas-fas nga xam ne daal fasuwu doon ñu war koo fecc firi ko talaax nag bu ñu ko waxee muy passé moom mbir mi fas woon na nosu woon na tegu woon na mu war a tegoo euh, waaye nag ginnaaw ba góor gi ndax moo tax sax ci loxol góor gi la nekk moom talaax muy passé góor gi moo am àq jooju fas nag muy firi gi moom nekku ci loxol góor gi waaye ci loxol àttekat bi ci la nekk mooy xool ba xam sëy bii war naa mën a wéy war a mën a wéy bu wërta mën a wéy mu firi ko parce que nag moom ci loxol góor gi la ko suñu borom teg euh, faw moo koy jëfandikoo mu door a mën a wéy hmm. bokk na ci tam li leen di tàggale ñoom ñaar mooy buñ parce que bu amee euh, dañ koy limaale maanaam euh, góor am na suñ borom jox na ko àq ci soxnaam balaa tàqali ko moom tàqali ko gu sëkk sëkk rek ñu wax ñu koy wax euh, talaaxul baain balaa mën a am albayinatul kubra albayinatul kubra balaa am dafa fekk góor gi bàyyi na soxnaam si ñetti yoon ñetti yoon yooyu nag xëy na ma ne wax ndax ñetti yoon yi mën naa am bu ko jaaree ni ko sariya santaane mooy bu dee bàyyi soxnaam na bàyyi ba soxna si nekk ci laab goo xam ne jotewuñ dara mu bàyyi ko menn passé te bañ koo tofal menn passé su ko defee kooka mooy talaaxu sunni bu fekkee bàyyi na ko noonu ba idda ca jeex bu ko bëggee jëlaat manis na ko fasaat mayaat ko ko loolu bu ko jaaree noonu mu def noonu aw yoon ñu dellu ko mayaat biñ ko ko mayaatee tam ñu dox dox ab diir mu dem ba xëy na am na lu ko naqari ci sëy bi mu bàyyiwaat soxna si bàyyin woowee kon ñaara ngoog buñ ne bu fekkee waxtaanoo nañ ba fasaak mayaat ko ko mu dellu ko bàyyiwaat nag bu bàyyi ko jeexee loolu la ñuy wax attalaaxul bàyyin albayyinatul kubra boobaa moom dootu ko mën a jëlaat li fekk amul boroom kër ba borom kër ba ànd ak moom ba bàyyi ko su ko defee ku njëkk bu bëggee jëlaat dootu mën a jëlaat kon day mel ne passé moom ñett balaa jeex tàkk-tàkk day mel ñetti yoon firi nag muy fas moom kenn du ko limaale ci passé yi masalan nit ki bu ñu ko mayoon soxna ñu gëstu ba xam ne nañ ko may jaarul yoon dañ ko war a firi buñ ko ko firee dañuy jàpp ne kon moo kuñ ko mës sa may ñooy am maanaa zalika mooy bu ko takkaatoon tam day mel ne am na ñett am na sañ-sañu ñetti passé amoon bu njëkk ba léegi sañ-sañ boobee mi ngi fi benn wàññi koogu ci kon daal yooyu benn la ci yenn yenn la ci anam yi nga xam ne nii firi ab sëy ak passé wuute nañ ko wuute nañ ci wàllu Euh, kii ku njëkk ki muy passé day yàgg day jeexal sëy bi euh, léeg-léeg da koy jeexal léeg-léeg ko jeexal firi nag moom da koy jeexal takk wuute nañ tam ci euh, firi kenn du ko limaale ci passé yi moom bu ko firee moo ko mës a takk ñooyam bokk na ci tam firi gi ñaare li koy waral mooy pas-pas ba moo amoon lu ci sikk passé nag li koy waral mooy pas-pas ba wëroon na waaye góor gi moo dem ba bëgg a bàyyi wala jigéen ji sàkk góor gi bàyyi ko boobaa mu door koo bàyyi loolu daal lenn la ci nga xam ne ñooy tàqale ñaari baat yooyu doonte seen résultat daal boo xoolee léeg dañuy daje fu bare bare. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi ci taqale gu am solo googu ci diggante ñaari baat yooyu kii tamit keneen la day laaj nee na ñetti baat yi la bëgg ñu leeral ko lu leen wuutale muy baatub an naqiir ak alfatil ak alqitmiir waaw ñetti baat yooyu de baat la yoo xam dañ ko fekk ci bindum sëriñ bi moo xam ci tasawudu subbaan wala ci tasawudu sixaar waaye ci tasawudu sixaar moom sëriñ bi moo ko firil boppam ndax ñu bari ci ñu fi toog jàng nañ ko xam ngeen ne ba mu ko waxee ba nopp dafa ne wal farqu bayna luxati naqiiri wa luxati lfatiili wal xitmiiri naqiiruha zahru nawaati wal fatiil fi batniha yakunu mayis yaa nabil wal xishratu lbaydaau fi tafsiri hiya allati yaduuna xitmiiri ala kulli haal ay baat la yoo xam ne def ci junj rek ne nit ki lu mu def ci àdduna lu mu sew sew ak lu mu tuut tuut rek ba àllaaxira bu dee lu baax ak bu dee safaan ba dis na ko ko xisaab bu dee lu baax ñu fay ko ko ca bu dee ab safaan ñu ñu ñu mbugal ko ko mu ne nag naqiir ñetti baat yëpp ci ci saalub tàndal bi lay nekk naqiir dañoo wax ne mooy loolu du ñu lu ab xóot-xóot lu mel ne xar-xar bu nekk ci saalub tàndalma bi fatil nag mooy lii nuru ak wëñ xam ne boo seetloo saal bi gis mu doon wëñ goo xam ne day tëdd day day mel ne lu tëdd ci biir xar boobu li ñuy wax xit miir nag mooy li koy liy muur saal bi maanaam xob xob su weex soosu nga xam ne mooy muur saal bi léeg-léeg mu ànd ak saal bi léeg-léeg tam ànd ak jëmmi doom bi ñuy lekk loolu mooy xet miir yooyu yëpp luñ ñu jublu rek mooy ay missaal ci mbir yu sew a sew yoo xam ne nii nit ki mën na koo def bañ koo bàyyi xel te bu àllaaxee dañ koy jàppee ndax suñu borom sax moo ko njëkk a juñ ci alxuraan wax ne fa man yaamal a zarratin xayra yara wa man yaamal misqaala zarratin sharra yara xam nga zarra tam bokk na ci missaal yi ñu joxe ci mbir yu tuuti hmm. ñenn ñi di ko firee aw ferñeent ñenn ñi di ko firee aw sàngaleñ waaye xalaa kulli xaal lu tuuti rek lay tegtale bismillah jërëjëf Serigne Cheikh kii moom day laaj lan mooy àtteeb assurance ci lislaam assurance de dafa bokk ci muhaamalaat yi nga xam ne nii waxan ci yu yees yi la bokk maanaam yàggut lool rawatina ci alamul islaami bi mën nañ ne yu bari ci tubaab bi lañ ko roye sax waaye bi nga xam ne tubaab yi dugguñ suñu réew yi booba xamaguñ ko woon moom nag li ci gën a lëng gën cee dëgër ci waxe borom xam-xam yi nga xam ne moom lañuy ñoo jamonoon teg moom te jàng ko diraasa ko uti ji ko maanaam liñ ci wax eh, mooy dañ ko xaraamal ku mel ne docteur Yusuf al-Xaradaawi wala Cheikh Mahamadul Xasaali ku ci nekk boo demee ci gëstu yi ñu ca def ñoom dañoo gis ne dafa xaraam ndax li tax ñu ne daa xaraam muy muy assurance dañoo wax ne am na ñaari mbir yu ci daje yoo xam ne bépp pas-pas bu mu daje rek ci wàllu jëflante ci lislaam dañ koy araamal ba ca njëkk mooy li ñuy wax alxarar alxarar mooy wóorali loo xam ne euh, garanti wut lu ñaareel ba mooy lu mel ne xeetu carte da cee nekk euh, ñàkk wóorali gi mooy lan mooy assurance euh, dañ ciy sart li nga xam ne moo tax ngay assurer li ngay bëgg a def ndax en silence temps la koy waral li ci ëpp li ci ëpp mooy nga ragal accident def en bu accident amee ñu man laa euh, jox sa euh, say fere wala nga en silence sëg dund am na ñoo xam ne dañ koy def tubaab yeeg yooyu dañuy en silence seen xam ne buñ faatoo day am alal yoo dañ ko yëkkati jox ko ña leen war a doon ñaar yooyu mooy waral waaye société yi nga xam ñooy yor en yi dañuy sart ci accident boobu nga xam ne yaakaar nga mën naa am bul xam kañ lay am te bul xam nu muy amee waaye bu la wóoree ni faaw accident am te it at dat sàngam lay am kon assurance bi du ko nangu kon loolu xam nga wóor di ndax yow loo xamul dana am wala am ngay joxe sa xaalis naan bu amee nañ ma ko defal loolu fuqaha yu nanguwuñ ko la ca tege mooy lu mel ne dafa xaw noo carte ci wet ndax yow mi nga xam ne yaay joxe ñu lay assuréel sa yëf mën naa am li ngay joxe du bari ndax man ngaa yor fi oto boo xam ne nii wala ci yeten yeneen bagage yoo xam dañ leen di assuré mën nga caay loo xam ne bu yàqu woon lañ cay fere ala sabilil misaal mën naa nekk nangam million te yow li nga fay ci assurance bi mën naa yees téeméeri junni sax xam nga loolu kon dangay mel ni yow da ngaa bëgg a joxe lu tuuti te bu ca kanamee nga am lu baree bari maanaam loolu mooy carte rek carte mooy da ngay joxe lu tuuti. kii joxe la tuuti ñu dajale ko jox kenn loolu tax islaam nangu ko ba tey bokk na ci e, li nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko ci ensilage e, donte am nañu ko nangu nag moom ci borom xam-xam yu yees yi am na ci ñoo xam ne gis nañ ni en science may si na ko jëfandikoo waaye lépp ci gëstukat yi ci wàllu gis wet googu daal li lëngal mooy en moom ci nii ñu koy defee nii nii mooy su na ko xoolaat islaam moom daganal dimbalante dimbalante la daganal lañuy wax at taamin at taawuni yi nga xam ne da ngay joxe dara kële joxe dara kenn ku ne nag yow li ngay joxe joxe ko ngir eh, fayu ko waaye danga ko joxe ngir dimbalante ku am jafe-jafe seen biir ñu dimbale ko ci nga xam ne woo ci leneen loolu tabaronx lañ koy wax tabaronx boobu moom fekkee am na ci eh, borom xam yi nga xam ne wax nañ ni badil bi ñu war a indi mooy badil boobu xam ne duñ la ci forcé loolu nag laa wax nii ne bu ñu waxee nii ne eh, assurance dëgganul ci lislaam rek boo génnatee bu sa assurance oto je sa oto jeexee nga du mën a gàtt assurance déedéet ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne nii li nga xam ne mooy doxal réew mi bari na ci loo xam ne teguñu ko ci lislaam yeneen loi la yoo xam ne nii dañ koo jëggaani faneen indi ko fi di ko fi doxal loolu nag ginnaaw ñu koy doxal ay boromi doole lañ te boo ci jaarul mën nañ laa sonal kon ngir sàmm sa der ak sàmm sa alal ak sàmm sa jëmm mën nga caa wéy te xam ne lii ad darura rek moo ko waral nga jëfandikoo li fuqaha yi naan ad daruraat tubixul mahsuraat maanaam saa yu darura amee nga xam ne ñàkk pexe fi sës boo léeg-léeg nga jëfandikoo loo xam ne sax du dagan ci yow loolu nag bari na ci jëflante ci wàllu alal wàllu alal ci suñu réew yi bari na ci anam yoo xam ñu ngi koy jëfalante te ñàkk pexe moo ñu ci yóbbu waaye tegewut ci lislaam mën nañ caa tudd rek li ñuy wax ay intérêt ci ci banques yi intérêt yi banques yi joxe nga xam ne bu ñu la lebalee wala nga dénkaane fi sa alal am lu ñu la ci tegal loolu ñun ñëpp jàng nañ ne riba la te riba kenn ku ne xam na ni ko suñ borom diisale ak fi ko àggale waaye ginnaaw dañu ko euh, fardu maam teg ñu ko tegin woo xam ne amuñ ci pexe képp koo xam ne mënoo dem nga ba ñàkk pexe ba nga xam ne mënoo ko jëfandikoo ñàkk jëfandikoo nga teg ko foofu te jàpp sa xel ak sa xol xam ne lii ngay def de wuti wut ak am wàcc moo xam ne nii dañ laa forcer ci nga lekkaat ko rek waaye boo amoon pexe doo ko jëfandikoo kon xeeti moo amalaat yooyu dañ koy dugal ci bunt boobu rek mu nekk buntum ñàkk pexe te nag ñu bàyyi xel ne suñu état yi ñoo leen fi teg. ginnaaw ñoo leen fi teg nag ñun jullit yi war nañu am xalaat ci ni ñu doxee réew mi ba mboolem xeeti jëflant yooyu yëpp lépp luñ ci mën a wëlbati ba mu dëppoogul islaam ñu sàkk ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci ensemble nga xam ñooy watee luwaa yi ñu lu ñu luwaa yu mel noonu yoo xam ne dëppoog li nga xam ne moom lañu bëgg ndax boobaa dañ bénéfice ñaari yoon bénéfice bu njëkk bi mooy kenn ku ne sa xel dana dal ndax nit ki buy lekk alal joo xam ne xelam dalu ca loolu du neex ci moom ab jullit bu dee lekk loo xam ne yàlla da ko araamal ci moom xelam du dal su ko defee nag bu ñu fexee ba jëflante yëpp ñu teg ko ci lislaam boobaa kenn ku ne la ngay lekk saxal la cay dal loo ci am benn jaaxle la ko ñaanal tam mooy yokk gi ñu bëgg a yokk ci wàllu koom-koom bari na ci yoo xam ne bu ñu ko jaarale woon ci lislaam ci lay gën a gaawee fuuf waaye dañ ci topp tuwaab yi ba nga xam ne ñoom lañuy doxale rek la ñuy doxale te fekk am na ci yoo xam ne moom li ñuy wax capitalisme yi ñoo ko indi ci wàllu jox leen ci alal ngir ñoom ñu seen alal di yokk fu ñu toll ñu ñu tuddee la nga xam ne amuñu alal ñoom seen alal di gën di wàññi ñu toll loolu nag wóote nag li lim santaane islaam dafa santaane moom alal ji ñu fexe ba mu tas ci biir nit ñi kenn ku ne am sa wàll waaye doxin wi nga xam ne moom la régime yu bare bari ci àdduna bi dox fi ne nii ñi nga xam ne ñoo alam alal rek ñoom la seen alal di yokk fu ñu toll ñi nga xam ne amuñu moom seen ñàkk day gën di yokk fu ñu toll kon daal li nga xam ne moom la war a gën a góorgóorlu mooy fexe ba yi nga xam ne moom lañu doxal ci réew mi yépp ñu fexe ba lu ci mën a ànd ak lislaam rek ñu dëppale kook lislaam te loolu warut jafe ndax ginnaaw ay julliti fi jul dund eh, bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggalee seen bopp rek eh, ñi nga xam ne ñooy doxal luwaay ñoom it dañ leen ciy fekk si wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab mm-hmm. jërëjëf yooyu am na solo lool ci wàllu assurance kii moom day laaj nee na dafay gis ne léeg-léeg bu ñuy denc ab néew dañuy teg ay xobi garab ci kawam wala ñu teg ay bant ci kawam walla zeng wala yu mel noonu muy laaj ba xam loolu lu ci àtteb lislaam waaw loolu de li nga xam ne moom lañ ci gis mooy li nekk ci xalil Seexu xalil jàngale ko mooy daa wax ne ba mu demee ci baabul euh, janaasa la bu wax mooy euh, buñ dencee néew bi dugal ko ci biir bàmmeel bi euh, da caa teg ibaara bi mooy wa sadduhu bi labanin summa lawxin summa xurmuudin summa xasabin maanaam néew bu ñu ko dugalee ci biir bàmmeelam ba bëgg a denc eh, nañ sakk pax ma ci kenn ci yi mu tudd la ci jiitu mooy bu fekkee am nañ ko mooy mooli ban bu ñu amut ay mooli bañ ñu ay dénk koy ay ay bant yu yaatu ñu wax planche sakk ko buntub sàq ba ndax bu dee bàmmeel bi sàq la ñu sakke ko bu fekkee laxdul lam ñu teg ko ci kaw bu fekkee amuñu moo façon mool yooyu amuñu xeeti place itam ñu wut lu mel ne li ñuy wax ay téwél moolu téwél yooyu muuree ko barab ba maanaam muuree ko pax mu njëkk mi bu fekkee amuñu loolu lépp ñu wut ay bant yu dëgër a dëgër muuree ko ko door ko euh, door koo suul loolu daal lañ jàng ci téere yi amaa li ñuy def fii nag ci barab yu bari muy jël ay xob rek teg ko ci kaw noonu xay na àtte cosaan ba moo dem ba jafe lool léegi ñu bëgg koo dundal rek waaye li nga xam ne moom moo sax ci téere yi mooy eh, yu mel noonu lañ war a ji def ci bàmmeel bi waaye gisuñu wax ne ay ay xob lañ ci war a def ak lu mel noonu kon xay na ñu koy def mën naa am àtte bu njëkk ba daa dem ba yombatul léegi ñu bëgg barkeelu ci wax jooju rek tax ñuy jël lu mel ne ay xob yooyu di ko ci def waaye jàpp naa ne bu ñu ko jël fut tam di gën a amuñu lenn ci yee te yooyu tam ñu ko amee. def gi nii wonu di bala wax rek dañ koo sopp rek waaye nekkut lu war nekkul loo xam ne te mënta ñàkk luñ sopp la loo xam ne bu ñu ko mënee def baax na waaye bu fekkee lenn amu ci yooyee nag kon ñu jël euh, ka ñuy denc denc ko noonu rek moo gën ndax daf caa teg sax ne loolu moo gën bu fekkee dañ ko def ci ak kees nag bu ko kenn dencaale kees ga kon dafa mel ne moom borom li mu gis mooy ñeent yi mu wax bu fekkee lenn amu ci ñu jël néew ba dugal ko ci biir bàmmeel ba te sotti ci suuf sa mu àgg ci moom directement mel na loolu la gis moom wallaahul muwaffiq as-sawaab jazakumullahu xayran sëriñ cheikh kii day laaj laaye ji lu ko tax a wàcc yaa ayuha nabiyu lima tuxarrimu maa axalla allahu laka tabtaxi waaw aaya boobu de mu ngi ci sóotu taxrim mooy njëlbeenu sóotu taxrim sax dañoo wax na nag tudd nañ sabab bu bul ko tax a wàcc ay mbir yu bari bokk na ci ñaar daal yi gën a siiw mooy dañoo wax ne yonent bi alayhi salaatu dafa araabaloon ci boppam benn jaariyaam muy ab jabéeram bu ñuy wax maariyal xibtiya bi mu ko araamalee ci boppam nag araamal goo xam ne nag du araam mu teg ko ci yàlla ko araamal waaye jomblu ko rek eh, alxuraan di wàcc mel ne ku ko yedd ci loolu naa ko yow yonente bi alayhi salaatu salaam li tax ngay araamal ci sa bopp loo xam ne yàlla daganal na ko ci yow am na ñu ne loolu moo tax aay bi wàcc am na benn riwaay bu ci ñëw ci asbaabu nusuul yi te imaamul Buxaari yi génne ko moo wax ne yonente bi alayhi salaatu salaam daf daan def masaan julli tàkkusaan ba ko day jaar ci benn ci néeg ci waa yi kenn dallu fa as ndiir door a génn ñu wax na bis mu julli ba wàññiku jaar ci néegub umul muminin Seynab bintu Jaxs radiyallahu anha nee na mu jox ko fa ak lem ba mu génnee nag jigéen ñi niñ baaxoo rek seen diggante ay wujj moroom ja am ci ñaar ci waa këram ñaar ñoo xam ne dañoo wax ne bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee danañ fexe ba sikkal euh, lam jëfandikoo ci kër na Seynab bintu Jaxs boobu biñ génnee ñu ne ko waaw yooloo doon naan foofa mooy leen ak lem de laa fa naan ñu ne ko déedéet yow kay lañ la jox nga jëfandikoo fa aw ñam la moo xam ne ne ñam lu naqari xet boo xam ne nii daal euh, daawuñ ko soppoo jëfandikoo ñu jaar ci turu ne ko loolu nga fa jëfandikoo way biñ ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, dañ ko xamal ne ko lem googu mu la jox de nangam la ci def loolee mu ci def nag day loo xam ne neexut xet biñ ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ak maanum ak sellam mu nekkoon léegi bàyyi naa farlem araamal naa ko sama bopp ñu ne loo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala wàcc aay boobu mel ne ko ci yedd waaye yeddaa nga itam li tax nga xam ne tedd tedd tedd nga yonent bi alayhi feeñ na ci mooy ni mu xitaab bi fi mu ko tàmbaleek moom ndax jaarul ci turam neewu ko yaa Muhammad neewu ko lan def na ko yaa ayyuhan nabiyyu xam nga jox ko dara jaam ju mag ji nga xam ne moom la ko moom la ko jox nga xam ne da ko njëkk a tagg teral ko door ko wax li mu koy wax nag kon nag itaab lay nuru waaye itaabun fii tasrif la loolu lépp day wane ne dara di jëma xaama boo xam ne yonent bi am na ko suñ borom ba buy waxanteeg moom loo xam day nuru nuru ay yeddaangi sax la muy tàmbalee wax ja mooy wax joo xam ne ju sedd xol lay doon joo xam ne koo ko xas wax rek bu naroon mer rek dootu mer ndax sol toll na suñ borom subhanahu wa ta'ala bu waxanteeg mbindeef ne ko yow mi ma yónni kon loola mbindeef ma lu ko suñu borom wax ak lu mu nuru diis dana wayef ci moom ndax nam tàmbalee ak mu wax ca loolu nag mooy diggante bi nga xam ne moo doxoon diggante suñ borom subhanahu wa ta'ala ak soppeem boobee muy sayyidina Muhammad lépp lu muy wax ak moom ci uslub boobu la koy waxee moom muy uslubu tasrif fa takrim kii moom it day laaj nee na li sunu borom wax ne innamal mushrikuuna najasun loolu lay laaj lu mu ci jublu lu muy tekki waaw aaya boobu de mooy aaya ñaar fukk ak juróom-ñetteel ci sóoratu tawba mu nekk aaya boo xam ne nag ulama tafsir andi nañ ci ay wax yu bare bare boo demee ci tafsir bi ibnul arabi yu def tudde ko ahkaamul quraan ballool na ca lu ma fukki masala ci aaya boobu rek kon aaya la boo xam ne nii coow lu bare bare am na ci waaye nag ci ni ko borom xam-xam yi tënke mooy ko mel ne ibnu kasir ni mu ko tënkee rek mooy dafa wax ne aay boobu dafa ñëw ngir tere yéefar yi muy musrikuun yi ñuy dugg ci alxaramul makki bi ñuy dem Makka di dugg ci biir xaram bi loolu la ñëwoon ngeen deen ko tere wax ne innamal musrikuuna ñi nga xam dañuy bokkaale ak suñu borom suñu sobe lañ sobe sow nag du caagee ne sobe soo xam daa leen taq nii waaye sobe bu wii la maanaam ci ci maanaa ndax li tax nekk sobe ci maanaa mooy ñàkk gi ñàkk gëm yàlla ak bokkaale gi ñuy bokkaale moo tax ñu mel ne sobe lañ waaye jubluwu ci ne seen jëmm yi sobe la ba nga xam ne ku leen laal da ngaa war a euh, raxas say loxo wala nga war jàpp de ne doon sobe su mel noonu ndax am musrika xam ngeen ne ab jullit sañ naa takk koo xam ne du jullit te bu fekkoonte ne dañoo jàpp ne ku nekkul jullit rek sobe nga sa jëmmu sobe la kon jaxasoo watama nekk seen diggante xam ngeen ne jullit yi am nañ sañ-sañu lekk ñam boo xam ne daa jóge ci ab yéefar am nañ sañ-sañ tam bu dee góor mu takk jigéen joo xam ne dafa bokk ci ahlul kitaab te teewul ñoom ñëpp la suñ borom maasale wax ne najasun la moo tax borom xam yi wax ne baatub najas foofu muy sobe wut sobe si yu ñu xam nii waaye sobes biir la soo xam ne moo nekk ci ñoom moo tax ñu araamal ci ñoom ñuy dugg Makka ak dugg Madina bi nga xamee ne aay bi wàcc na muy ci atum juróom-ñeenteel ci gàttaay bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam dafa yebal Seydina Aliyun ne ko demal màkk nga dem taxaw ci kanam yéefar yépp jàng aaya bi bañ xam ne amatuñ léegi sañ-sañu ñu wër kaaba gi amatuñ boobu sañ-sañ tey ji at mii la jeex at moomu kon ci la ab yéefar mujj waree wëre kaaba gi boole woon na ci waxta ko ne ko tam boo tee nga wax ne dëgganut kenn koo xam ne dangaa raflewu soloo ay mbubb ngay wër kaaba gi loolu dafa mel ni suñu borom subhanahu wa bi mu koy doxal bi mu koy def daf doon waajal yonente bi fu màkk gi doon bëgg a def bëgg buy ñëw màkk di ko ubbi yooyu yëpp du fa dajeek moom moo tax mel ne loolu doon waajal ba tax na soo taw ba moom bari na atte yu ci nekk yoo xam ne mooy atte yu mujj yi nga xam ne nag moom la suñ borom mujj jox yonent bi sallallahu mu war a doxalanteeg ñi nga xam ne gëmuñu muy mushrikoon yi ak kufaaru Xuraysh def leen di war diggante moom ñoom ci soo ba lu ci bare bari foofu la ko faram fàncee fa la ko leerale wallaahul muwaffiq lis-sawaab mm. jërëjëf Serigne Cheikh kii tamit day laaj laaya ji suñu boroom wax ne qul yaa cibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatuu min rahmatillah muy laaj maanaam aaya bi la waaw aaya boobu day ci ni ko ibnu kasir nettalee moom ci tafsiram bu mag boobu dafa wax ne aaya la boo xam ne day woo mboolem ñi nga xam ne ñooy mooy moo xam ay jullit lañ moo xam ay yéefar lañ ñu dellu ci suñu borom te tuub bu ñu ko defee rek suñ boroom jéggal leen borom seeni bakkaar moo tax mu nekk aaya bu màgg boo xam ne nii Abdullah ibn Mas'ud daan wax ne aaya bi gën a bégloo nit ñi de mooy aayatu qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia innahu huwal xafuru rahim leen aaya boobu de mboolem aay yi bëgg la ci alxuraan moo ci gën a neex moo ci gën a bëggal nit ñi ci li tax aay bu wàcc itam ay wax yu bari ñëw na ci am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne li ko tax wàcc mooy ci wax si wax si moom nga xam ne moo rayoon xamsatu ca ba dara te yonente melowoon ko lool teewut ba mu ñëwee dugg ci lislaam ci la soñ borom wàcce aaya bi xamal ko ne ko mboolem bakkaar bi nga defoon di rëy na lool waaye nag boo ko tuubee suñ borom mën na la ko mën na la ko jéggal moo tax mu nekk aaya boo xam ne nii eh, góor yàlla yu bare bari dañ koy denc bu sore sore ci seen xol moo tax sawbaan mi nga xam ne eh, mawla rasulillahi la woon dafa daan wax ne aaya bii de buñ ma joxoon àdduna ak li ci biiram ngir ma bàyyi aaya bi du ma ko nangu aaya bi moo ma gënal àdduna ak li ci biiram maa ahab maa uhibbu anna li ad-dunya wa ma fiha bi haasihi aaya aaya bii de moo ma gënal mboolem li nekk ci àdduna ak li ci biiram kon aaya bi noonu la màggee loolu la yaakaaroo mu nekk sóotu az-zumar muy aayaat yoo xam ne nii loolu la suñu borom jublu mooy soññi nit ñi rek suñu dellu ci suñu borom di tuub te xam ne bàkkaar lu màgg-màgg rek boo ko tuubee yàlla mën na la ko jéggal ba ci bokkaale suñu borom sax boo ko tuubee mën na la ko jéggal kon nag ñu farlu ci tuub bu baax a baax rawatina ci weer yi ñu nekk te ngeen xam ne ci fukki fan yi nekk digg bi waxoon nañ ne fukki fan yi njëggal la kon nañ yeesal suub gi di delluwaat suñu borom te jéem a sàmmonteeg sàrt yi nga xam ne moom la sëriñ bu wax ci tuub te leeral ko leeral bu mat sëkk ci téeram yu baree bari rawanati rawatina ci aljawharu nafis mu wax ne la ci jiitu mooy nga rëccu bakkaar bi nga defoon fa séene ko bañ a defati nee na loolu moo jiitu ci tuub kon nañu góor góorgóorlu ci bu baax a baax te xam ne jullit fu mu toll tuub mooy ngànnaayam te yonent bi alayhi salaatu waxoon na ne bàkkaar lu mu bari bari boo dee tuub muy far waaye li nga xam ne moom la suñu borom bañ mooy di def bàkkaar te tuuboo ndax ni ko sëriñ bi waxee ci jawhar day mujj suñ borom sànji la mere la ba nga xam ne boo tuubee sax dootu faale sa tuub googee kon nag ñu góorgóorlu ci tuub fu ñu toll yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne man de bi su nekk danaa jéggulu sama borom lu ma juróom-ñaar fukki yoon ginnaaw moom mu màgg moomee sell moomee nag mooy jëflanteeg boroomam ci wet googu rawatina ñun ñi nga xam ne suñu njuumte day bari waxtu wu nekk moo tax mu ne woon kullukum xataa'un wa xayrul yi at-tawaabuun nee na mboolem kuy doomu aadama day mënoo ñàkk a juum waaye nag ñi gëm ci ñi gën ci ñuy juum mooy ñi nga xam ñooy tuub kon nañ farfarlu nañ góorgóor lu baax ci tuub fu ñu toll dem nekk dëggu ci suñu xol buñ ko dee bari na yoo xam ne ñu ngi koy jàmbat ci ay jafe-jafe yu baree bari suñu borom mën nañu ko teggil wallaahul muwaffiq lis-sawaab Euh, kii moom day laaj nee na lan mooy ngoro ci lislaam ak ndax ngoro am na ab diir bu mu war a yem walla déet waaw ngoro ci lislaam dañu koy wax alxitba bi kasil xaa euh, nañ koy taarife mooy ki nga xam ne daa bëgg soxna dem ci jigéen ji mu bëgg xool ko ba bu gisee lu ko ca doy mën koo takk soxna loolu dañ ko yoonal loolu dagan la ci lislaam loo xam ne ahadis yu bare bare ñëw nañ di ko saxal bokk na ci adis bi nga xam ne jaabir ibnu abdillahi moo ko solo waxoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne isaa xataba ahadukum fa in istataaha an yanzura ilayha minha ila ma yaduhu ila nikaahiha falyafal yonente bi waxoon na ne kenn ci yéen ku maa doon bu bëggee takk jigéen bu fexee ba mën fexe ba xool ko ba gis ci moom loo xam dana tax bu ko tag euh, mu gën ci gën a sawar ci takk ko loolee may nañ ko mu def ko kon mbir la moo xam lu ñu yoonal la tey dana tax maanaam sëy bi bu taxawee lañ doon wax ci njëlbeen gi wax ne ab sëy bu xasee fasu li ñu ñaan mooy muy doon luy sax loolu bokk na ci liy tax sëy yi mën a gën a sax mooy buñ deen jiital xitba googu te teg ko ci ni ko lislaam santaane rek bañ koo géej jëlal ni ko bañ koo génne cadre lislaam kon mën naa am sëy yi gën a gën a gën a dana gën a dëgër ba li ñuy jàmbat ci tàggoo yu bari yi mën a wàññi moom nag luñ ko kàpp boo xam ne dañ naan ci fii la yam xam naa daal bu fekk yow ragal nga suñ borom subhanahu wa taala boo defee loo xam ne xamee nga ci jigéen ji mel rek euh, ba sa xel dal ci war nga ma daal di sàkku nag ñu fasal la ko bu ci ay mbokkam àndee ak ay waajuram ñu fasal la ko waaye euh, li ñuy wax fiancé léegi ni ñu koy defee léegi di ko yàggal di dem fu la dugg fa loolu bokkut ak njàngam lislaam njàngaleelu lislaam mooy loolu ñu wax fiancé muy labat gi eh, naam am nga sañ-sañ xool ko sax nag waaye mayuñu la nga wéet ak moom ndax yonent bi alayhi salaam daa waxoon ne genn góor bu mu wéet ak jigéen joo xam ne takku ko kon daal liñ la may mooy boo koy xoolit na fa ay kenn ci ay maxaarimam nekk muy benn waajuram bu góor wala ndeyam wala mbokkam moo xam ne dañoo bokk mbokk gu jege goo xam ne maxaram la ci moom na fexe ba ñetteel leen booy xool jigéen jooju mu xool ko loolu nag boo xasee am moom euh, man ngeen ànd sax génn ngeen dem fenn ci ak wala yu mel noonu yëpp fekk ànd nga ak ñeneen ñoo xam ne ay maxaarim lañ dagan nañ liñ la mayut daal mooy ngay ànd ak moom di génn di dem ak dikk ñaar képp loolu moom lislaam mayewu ko ci ci fiancé li maye daal mooy diggante soosu na doon diggante soo xam ne nii diggante xool la ak gëstu ay jikkoom bu la doyee nga dugg ci bu la doyut nga dellu ginnaaw waaye bu mu doon diggante soo xam da nga cee bëgg jaar ngir bëgg def yeneen yoo xam ne dëppoo wut ak lislaam santaane wallaahu muwaffiq lis-sawaab jazakallahu xayran sëriñ Cheikh kii day ne kii da ne moom dafa am ay bor yu bari ndax génn muurum koor dana ko war ginnaaw bu mu xamee ne moom yor na ay bor yu bari wala déet waaw muurum koor de dafa nekk farata ci koo xam ne woor nga ba koor gi jeex nga war koo génne ndax ñëw na ci addis ne koor dañ koy aj diggante asamaan ak fa mu war a àgg ci fañ koy bind fekk génnewoo woo muurum koor kenn du la ko yégalal kon nag sunna la soo xam ne sunnatun waajiba lañ koy wooyee daa war mi ngi war tam képp koo xam ne ab jullit nga nekk as gor moom takkuñu ko ci koom-koom bu bari wala ak nekk gone wala nekk jigéen képp koo xam ne eh, as nga di jullit rek eh, dalay daal di war eh, moom nag bëriwut moo tax daanaka loo ñàkk-ñàkk ak loo bari bari bar war nga ko mën a génne ndax saaxun dong lay doon saa dañ koy xool du soreek ñaari kilo ak liibar loolu nag ci pepp wala ci ceeb wala ci sëp wala ci xeet yi ñuy dundee mën nga natt ko génne ko loolu nag lu waaye bari bari baru ñàkkaar naa da ko man àgg nañ sax wax ne bu fekkonte da nga koy leb te mu wóor na da am loo faye war ngaa leb génne mburum koor kon daal mu bokkut ak asaka ji nga xam ne nii bu la waree ay bor war la asaka di lay wàcc bokkut ak mburum koor mburum koor moom daa nekkut alal ju joo xam ne eh, tënkuñu ko ci bor bu lay teg ci saw loos tax ñu wàcc la ko déedéet moom daal boo wooree ba koor gi jeex buñ ne suba la ñuy wori nga génne ko bokk na ci atem tam koo xam ne dangaa ngaa am njaboot. yaa ko war a génneel sa njaboot sa gone yu ndaw yi ne ci kër gi ak jigéen ñi ak say soxna yaa leen di génneel muulum koor ku ci mënta génneel boppam kon daal mbir la moo xam ne dañ koo yoonal ci lislaam ngir bisub kori bu ñëwee suñ mbokk yi nga xam ne dañoo néew doole bis ñu am leen doy ba mbég mi nga xam ne moom la suñ borom wax nañ ko dëkk ci bis boobu ñu ànd ko ak ñun dëkk ko loolu rek lañ ci jublu mu nekk loolu loo xam ne nii xekk ma moo ci nekk boo xam ne day tax xolli julli di gën a tàppoo gën a ànd ndax ñi nga xam ne amuñu doole buñ gisee ne ñi xam ne tànnal leen tuuti am nañu lu ñu jàppalee ba bisu feet boobu bi mu agsee ñoom ñëpp ñu ànd bokk mbégte mi dana tax ñoom it xol yi gën a dëppoo ànd bi gën a neex loolu rek jublu waaye du lu diis loo xam ne nii day diisal nit ki ba tax ñu naan booy reebor yu bari dañ la koy wàcce wallaahu muwaffiq lis-sawaab kii moom day laaj ndax gone mën naa jiite ay mag naa julli la waaw loolu léegi sax na ci xadis ne gone eh, sañ naa jiite ay mag ci naafile maanaam lim sañ sa jiite gi mooy farata waaye naafile moom gone mën na koo jiite ñoo xam ne ay mukallaf lañ ni mu saxe ci borom xam-xam fiq yi jërëjëf kii moom itam de laaj ndax dagan na ci nit muy seetaan koo xam ne nii ab animateur la wala acteur la boo xam ne day jouer ay théâtre waaye da ciy saboter l'islam mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu seetaan ku mel noonu loolu kay lu xaraam la ndax al istihza muy reetaan sabote lislaam loolu ku koy def ku nekk dañ la war a teg ci yoon sax bu dee réew moo xam ne lislaam fay dox dëgg-dëgg kenn suñu ko faa def kon nag buñ gisee ku koy def donte mënuñu koo def liñ santaane ci kawam it lañ mën a kus néew mooy ñu bañ koo xool bañ koo faale bu ñëpp defee noonu rek mën naa mu bàyyi ko waaye bu kenn amee soxla ci moom def xool la muy def rek mën naa am tax loola mu gën a woy ci la mu daan def te loolu kenn waru ko caa encouragé kon loolu eh, loolu nag bari na bari na léegi ndax télé yu bare bari dafa mel ne lislaam léegi foyukaay dañ ko def moom daal seen théâtre yeeg seen yëpp ci lislaam lañ koy jëmee di saboté ñi nga xam ñoo ne ci jumaa yeeg jàkka yi ak di def lu baax ñu leen di suyee di leen def anam gu ñaaw ñaaw goo xam ne nii day tax xale yi nga xam ne xamaguñ dara ñoom dañuy tax liggéey boobu ñu teel koo bañ ko duñ ko bëgg nga xam ne bis bu doon dañ jàng ba dem bay jàng sax buñ duñ nar a jàng xam boo xam ne dana leen tax ñu ma nekk lu mel noonu kon nag loolu jëf la ju ñaaw ñaaw joo xam ne ñi nga xam ne ñoo jiite média yi télé yi ak yi ñuy seetaan war nañ ci gën a góorgóorlu xam ne e, ñu ngi yàq ci lislaam loo xam ne li mënatuñ ko defar ñu góorgóorlu bu baax a baax ba fexe ba yi ñu jàllal yépp mu nekk loo xam ne nii day yokk woote bu lislaam waaye du nekk loo xam ne nii day wàññi lislaam wala mu koy saboote ba li nga xam ne dugg dugguñ ci dugguñ ci duñ xàmmem wala ñi nga xam ne amuñu ko xàmmee jàpp ne loolu mooy lislaam te fekk loolu saboote dong lañ jublu kon ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a jàppante ci lépp loo xam ne mooy jëmale lislaam kanam. Hmm. kii moom day laaj xadis bii ndax wér na wala déet. muy xadis bii di wax ne laana allahu alwasilata walmustawsila waa addis boobu day addis bu wér la boo xam ne nii imaamul buxaari yu radiallahu anhu soloo na ko téereem bu mag boobu mu ñu tuddee saxiixul yi hmm. ci bunt ba ñuy wax kitaabul libaas boo demee da nga fekk xadis boobu mu nekk addis boo xam ne mu ngi ko indi ca bunt bu mu tuddee baabu wasli saari maanaam jokk kawar ci geneen kawar gu ci bokkut mu nekk loo xam ne nii daa xaraam hadis ba na ko imaamul buxaari indi mooy xaddasana yunus ibnu muhammad xaddasana fulayjun an zeyd ibnu aslama an ata ibnu yasaar an abi hurayrata radiallahu anhu an innabii sallallahu alayhi wa sallam qaal laana allahu alwasilata walmustawsila walwaashimata walmustawsima kon hadis la bu wér wér boo xam ne nii eh, sax na ci téere bi nga xam ne ginnaaw alxaar moo gën a wér ci téere yi muy saxiixul xaal yi euh, xadis bi tamit bu ñu mënee leeral maanaam bi maanaam hadis bi mi ngi aju ci lu ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo ubbee ci yàlla moolu na koo xam ne nii da ngay jël sa kawar di ci jokk gaan kawar gu ci bokkut loolu xëy na li ëpp jigéen ñoo koy def jël ji kawar goo xam ne bokkut ak sa kawar daldi koy sof sa kawar loolu sax même donte ku ñuy bëgg a yóbbu ci këram muy sëyile sax mayuñu ko ko sàkkatuma nag ku nekkul foofu kon daal jëf la joo xam ne ni ju mata moytu la ndax yonente saa salaam ak la ko la ko la ko ubbee te xam nañ ne mu lu mu wax rek suñ borom ànd ci ak moom kon nag ginnaaw móolu na ku mel noona kon jullit bu nekk war ngaa fexe ba daw jëf jooju doo ko liggéeyee te doo sàkk ku la ko defal alwaasil mooy ki nga xam ne moo koy liggéeyee nga xam ne nii moom euh, coiffeur la nga xam ne moom li ko li yittee rek mooy ñëw mu leen yokkal seen kawar mustawsila nag mooy ki koy deflu jigéen ji nga xam ne moo ñëw di ko sàkku ñu defal ko ko kooka yonent bi saasam rëbb na ko ni ki noonu tam koo xam ne day gàjju jigéen joo xam ne day ñëw di gàjj yaramam di ko dagg ba kii mun am lu mu ci dugal ba mu ñuul wala mu am meneen melo mooy alwaasima kooku tam yonent bi daa rëbb ki koy def rëbb ki koy deflu wala waasima wala mustawsima kon nag ay jikkalu yu ñaaw ñaaw yoo xam ne mat a moytu la yu mat a mm, fexe ba mu génn société bi la te xam na islaam araamalul euh, tuwaaletu ak jëfandikoo ab taar qul man xarama zinatallahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati mina risq yàlla araamalul xeeti taar yi nga def ko waaye fu mu ko yemale lu ci nekk da ko wutal ay sart ak i condition yoo xam ne moo cee daje julli bi dal koo def dafa bu ngeen déglu woon waxtaanu démb wi ñu ko fekke woon te suñu mbokk Serigne Cheikh doon ko def ni mu doon wax ci allibaas jàngale na ci yu mel noonu islam moom bëgg na nit ki di solu sol gu baax waaye lu ci nekk nag mu dëppale koog li ñuy wax almuruwa dëppale koog ni islam santaane ak ni mu jàngalee te bañ caa topp ñeneen ñoo xam ne ñoom xamuñu lislaam jëfandikoo wuñu lislaam mu xam ne dafa am diina joo xam ne moom la ko suñu borom sant te diina jooju moom lañ ko laaj bu ëllëgee mu jëm ci ak góorgóorlu jéem a tënku ci nañ ko ko sante wallaahu al muwaffiq lis sawaab kii day laaj ndax am na luy wane ne nit moo gën ci lu yàlla bind lépp ak ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mooy ngën ji bindeef ndax am na loolu lu koy lu koy tegtale waaw loolu de mel na ne bari nay firnde bari na firnde yoo xam ne mooy day wane ne doomu aadama suñ borom moo ko tànnal boppam ndax aaya ju wax ci sootu isra wax ne wala xad karam naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin man xalaqna tafdila aaya boobu loolu lay loolu lay tegtale moo tax ibnu kasir bi mu koy tafsir dafa wax ne aay jii de tegtal bu wéra wéra la ci wane ne xeetu nit ñoo gën xeetu malaaka te malaaka mboolem yàlla bind ñoo ci gën a kawe ginnaaw nag xeetu nit mën naa dem ba gën malaaka euh, te ba mu ko waxee daf caa toftal ay ahadis yu bare bari yoo xam ne day saxal loolee bokk na ci addis yam ci indi addis boo xam ne Abdullah ibn Umar radiyallahu moo ko soloo wax ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa shay'un akramu ala llahi yawma alqiyaama min ibni aadam qiila ya rasulallah wala almalaa'ika qaal wala almalaa'ika almalaaikatu majburuuna bi man mansilati samsi wal qamar mu wax ne Abdullahi ibn Umar jëlee ni ab ci yéen di saa mu wax ne amul lenn lu gën a tedd fa suñ borom bu àllaaxiraa luy gën a tedd fa suñ borom ci doomu aadama bi mu ko waxee saxaaba yi laaj ko ne ko waaw malaaka yi nag moo leen ba ci malaaka yi sax ndax malaaka yi ñoom leen suñ borom bindee mooy mënuñu ko mooy laa yaxsuuna Allaaha maa amarahum waaye yaf'aluuna maa yu'maruun ñoom suñ borom bind leen ci xeetu bindin woo xam ne nii ñoom la ñuy def sëñ ñu ko bañ sëñ mënuñu ko bàyyi sax doomu aadama nag suñ borom daf koo defal xel na hadaynaahu najdayni xamal ko lu baax xamal ko safaan bàyyee ko boppam nag kon nag bu góor góorgóorloo ba nga xam ne fexe na ba jëmee ci boppam ci lu baax day mel ne kooka moo gën a jàmbaare ndax ki nga xam ne mën naa def leneen bàyyi ko fa def lu baax kooka ci jàng jàmbaar di feeñe waaye ki nga xam ne lenn dong la maa def mu defee loolu kenn du ko tagg waaye ki nga xam ne mën naa def ñaari mbir nag lu baax ak lu safaan mu bàyyi fa safaan ba def lu baax kooku fa la teraanga ji nekk moo tax suñu borom teral ko waaye nag ñu bàyyi xel ne teraanga jooju mi ngi aju ci rek mu tënku ci ni ko suñu borom sant mu koy def inna akramakum indallahi atqaakum ragal yi maanaam teraanga dëgg-dëgg mi ngi amee mooy ni ko sëriñ bi waxee ci xutbatul iid ñuy day ni fa innal karama huwa taqwa at taqwa teraanga jooju suñ borom teral doomu aadama la ko koy may mooy mu takkoo ragal yàlla di jéem a jëfe ngi diglu suñ borom yi su ko defee dana bokk ci ñooñu suñ borom teral ndax ni ngeen koy jàng ci alxuraan ci suuratu tiin eh, laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin suñ borom bi ñu bind doomu aadama bind ko bind lu sell waaye moom ci boppam nag mën naa dem ba suufeel boppam ba gën a suufe ñëpp ndax Euh, sawara mi bind wax na ne la am la an na jahanamel jinnati wan naas ajmain kon sawara woo nga xam ne ci lañ buggalee du ci dugal malaaka nit rek la fay dugal kon nag nit bu wàccee boppam ba àgg foofa te suñ borom yëkkati woon ko ba ca kaw loola moo ko yóbbee boppam kon nag loolu ab tasrif maanaam tasrif la ak takrif teral googu suñu borom teral doomu aadama daf ko ci takrif tasrif ko ci maanaam daf ko jox ab mission boo xam ne daa war a bàyyi xel ne moom kat àdduna ji mu nekk am na lu ko suñu borom sant mu war ci ak góor góorgóorlu ba teraanga jooje nga xam ne moom la ko taral mi fi wàcce buy delluwaat ci moom mu yóbbaale teraanga joojee waaye bu ko taralee jox ko teraanga ju toll noonu daf ko xalifaam ci suuf mu ñëw di fi def ay njuumte ak i yàqu-yàqu yoo xam ne buy dellu suñu borom day day fekk mu jéppi ko ba dootu ko bokk boole ci ñooy mu teraloon kon loole moo ko yóbbee boppam kon doomu aadama ju ne bu jàngee aaya boobu war naa gën a xam ne ab soññ la ci moom mu gën a góorlu ci mboolem xeetu yu baax yi li ñuy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag mooy xayrul xalqi moom it am nay tegtal yu bare bari mbokk na tegtal yooyu addis bu wér-wér boo xam ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ne inna allaha istafa min waladi ibrahima ismail wastafa min waladi ismail kinaana wastafa min bani kinaana xuraysan wastafa nii min xurays wastafa min xuraysin bani haashim wastafaani min bani hashim kon mooy addis bu wér-wér boo xam ne imam muslim moo ko génne mu nekk tànneef ci biir tànneef daa wax daa wax na suñu borom moo njëkk a tànn sayidna ibrahim bi mu ko tànnee wattaqazallaahu ibrahima xalila tànn ko muy ab soppeem waaye ibrahim amoon na njaboot teewul njabootam yooyu yëpp ismaahil la ci tànn jukki ko mu nekk mu gën caa tedd bi mu tànnee ismaahil tam ay doomam bi ñëwee mu tànn ci giir gu ñuy wax kinaana kinaana ci maami yonente yi lañ bokkoon biir kinaana mu jukkiwaat seen biir giir gu ñu wax xurees biir xurees mu jukkiwaat ci lu ñuy wax faxs maanaam eh, ñu ñuy wax banu xaasim kër gu ñu wax banu xaasim tànn leen sàllal leen ba nga xam ne ñoom sax lu ñu lekk sarax muy banu xaasim ci ñooñu nag la génnewaatu yonente bi alayhi salaatu salaam nga xam ne kon yonente bi moom bañ seggee ba segg ba ca mujj ga lañ ko door segg nag jukki ko teg fee kon mooy wane ne kon moo gën ku dul moom te it waxaat na ko ci benn addis sax wax ne ana akram walla di aadam eh, te nee na wala faqra du lu ma ci ndam jublu ma ci ndam maanaam maa gën képp ku yàlla bind waaye waxuma ko ngir damm eh, waxoon na ba tey ne ana akramul awwalin wal axirin wala faqra mboolem ñi fi ma a jaar ñi jiitu ak ñi mujj ñëpp maa ci gën jubluwuma ci damm nag waaye teraanga jumal yàlla defal la ma leen koy wax moo tax suñu sëriñ Seexuna alxadim radiallahu taala anhu bi mu koy melal ci e, muqaddamatul amdaax daf ko wax ne karumta wa fuqtal kulla yaa xayra mursalin alayka salaatun tiibuha axjaral miska yow de ku tedd nga yaa xam ne kawe nga mboolem ku ma sa yónni kon nag li ñu lay ñaanal mooy suñu borom di la gën doole xéewal goo xam ne nii day neex ba gën a neex misk kon daal gëneelu doomu aadama lu sax la ci alxuraan suñu borom tànn na ko ci sartum nag mu tënku ci yooya nga xam ne moom la ko suñ borom tënkuloo yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom suñ borom moo ko tànnal boppam te it moo ko dimbale ba nga xam ne nii fa mu ko tegoon du fa jóge mukk moom comme teraangam jooju du dañ mukk day ànd ak moom ba faw waaye teraanga doomu aadama nag mën naa dem ba ñàkk ko bu fekkee tënku ci ni suñ borom sant mu tënku ci amma sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moom teraangaam day woyu faw ba bu ñu duggee àjjana sax boobaa ci ña fi gën a kawe ay balab lay bokk kon teraangaam moom teraanga yoo xam ne suñu boo bokk tànnal mu doon juy sax di woyu ba faw wallaahul muwaffiq lis sawaab mhm. jërëjëf sëriñ Cheikh kii dey laaj ndax ab sëy dagan nañu fase ko ci fudul jàkk wala boog nga xam ne kii labat ak ki koy may dañuy jokkoo ci téléphone rek kii labat na ko may ma diw kilifa gi ne ko may naa la ko lépp amee ci téléphone du am ay seere du am dara muy laaj ba xam ndax loolu dina dagan wala déet. waaw dafa mel laaj boobu de dafa làmboo ay ay xaaj yu bari ci biir la ci jiitu mooy fas sëy bi ñu defe ko ci jàkk wala ci jumaa loola nekku ci sart boo xam ne mënta ñàkk daa tolloog sopp nañ ko de ndax jumaa ak jàkk barab yu sell lañ yoo xam ne nii ginnaaw sëy bi dañ koy taxawal ngir bëgg mu doon loo xam ne suñu borom di ci def barke ñu dem ci barab yooyu barkeel def ko fa ndax barke bañ fa yaakaar suñu borom def ko ci loola moo tax borom xam yu sopp ñu defe ko ci barab yu sell yooyu waaye teewut faneen fu ñu ko fase woon tam mën naa wéy ndax bokk ko ci suratu sixa yi moom ñu fase ko ci biir jàkk wala biir jumaa xaajum ñaareel mooy fas ab ci téléphone euh, loolu itam mu ngi aju ci ñaar ñiy téléphone te ñoom doon bu fekkee kilifa jigéen ji Euh, moo doxe ndigal ki nga xam ne moo ñaan soxna tam moo wax ak kooka ba mu may ko loola war su ko maa nangu waaye nag du caagi nag dangay woot téléphone rek njëkk koo jot rek mu daal lay may may gi daal di wéy te may googu tam bu woyee balaa mën a baax faw day am ay suhut suhut yi mooy seere yi faw ñaar ñu maandu ñu góor wala mbooloo mu góor dañ koy dañ leen di woo leen ah yëg leen ne diw sàngam jigéen sàngamkat may nañ ko góor sàngam ngeen seere ko ndax ponk sëy li ngeen ko jànge ñeent la ba ci jiitu mooy kilifa gi faaw kilifa dafay am kilifa góor goo xam ne mooy am sañ-sañu maye kilifa yi ci jiitu mooy baayu jigéen ji bu fa baay ba ko jàng ci yenn kilifa yi ñëw waaye bu fa baay nekkee moom kenn amul sañ-sañu maye nda rek jox ndigal ne ko mayal ma sama doom ji ponkam ñaareelu mooy ñi koy seere sëy itam mënees su tëju ci néeg rek góor gi nga xam ne moo ñaan soxna ñaan ki mu koy ñaan ki ko koy may may ko ko sëy bi woy déedéet faaw rek dañ koy génne ci biir mbooloo mi bañ yëg ko bañ yëg ne diw may nañ ko diw mu door a dagan mooy seere yi seere yooyu nag li ci gën a néew mooy ñaar ñu maandu ginnaaw jamono neexut ñu maandu xëy na léeg mu jafe ñu ne nañ fexe ba mbooloo mi bari ba seere ko ponkum ñetteel bi mooy niñ koy niñ koy fase li ñu fase sëy bi li koy tënk mooy siyaaxatul aqli bi mooy alxabul wa maanaam ñoom ñaar daal ki nga xam ne mooy maye na maye ki ñu koy may nangu loolu bu amee rek ci baat bu mën a amee rek ak ci loxa maanaam waxin bu mën a amee baax na bu ñu ko waxee ci wolof baax na bu ñu ko waxee ci séeréer baax na bu ñu ko waxee ci pulaar euh, bu ñu ko waxee ci arab baax na kon li am solo mooy ki nga xam ne mooy kilifa jigéen ji ne ko may naa la moom mii dagaan si wala kam yabal mu koy dagaanal ne nangu naa loolu bu amee rek mooy sixatul aqd bi am na la ko ñeenteel mooy can gi can gi te mënuñu ko ñàkk faw góor gi nga xam ne mooy labat si day tudd ak can benn mu teewal ko ci fa ñuy fase sëy wala mu ne man danaa ko cane nàngam bañ xam ne moom kat warul na can sàngam sëy bi doolu may ñeenti ponk yi daal fu mu ame ci sëy rek sëy ba mën naa wér moo xam dañ ko fase ci biirub néeg moo xam dañ ko fase ci pénc waaye nag li gën mooy buñ ko mënee fase ci jumaa ja ca jàkka ja wala ci jumaa ja ca kanam nit ñu baax ñi nga xam ñoo ne foofee di ilimaan yaag ña fay taxaw ñu fekke ko loolu dana tax ñu gën am yaakaar rawatina sax ñu ne bu fekkee dama suñu ko def bisu ajjuma ci ngoonu ajjuma muy waxtu woo xam ne waxtu ñu yaakaar ak nungu ak ñaan la ñu fas ko ci waxtoo wu tam bokk ci liñ gën yaakaar ci barke ci sëy boobu jëmmi xutba bi nag mooy li nga xam ne moom la ñuy jàng moom dañ ko sopp rek waaye bu ci amut tam tey sàtt yi ma waxoon léegi mat lu tee sëy bi dana wér waaye nag buñ ci mënee boole ab xutba boo xam ne dañ cey waxaale aayaat yi nga xam ne ñooy eh, aju ci mbirum sëy ak dénkaan ni ca lenn ci dénkaan yi nga xam ne moom la suñ bon subhanahu wa ta'ala dénk ñaar ñuy takkante duñ ko mënee dugal ci biir xutba ba loolu lépp day tax day tax rek maanaam Eh, loolu ñuy doxal gën a dëgër ñoom ñaar ñi ko seq tam ñu gën a jox warma pas-pas boobu ba boo léegi kenn du ko fayet ñoom ñaar ndax bu ñu koy xutba wax leen ne fa imsaakun bi maarufin aw tasrixun bi ixsaanin te ñu xamal ko góor gi loolu mooy lan xamal ko ne ko kii ñu lay may kat dañoo bëgg boo koy téye nga yëkk téye ko ci njëkk ak teraanga boo demee ba nga xam ne tam bàyyi moo fi sës na nga ko bàyyi ci bàyyee anam gu rafet te anam gu rafet bi mooy ki ñu jàngale woon ci kanam mooy nga jaar ko ci ni ko yént bi santaane boo naree bàyyi nga bàyyee noona te bañ a bàyyee anam gu ñaaw bu fekkee jàngale na loolu ci biir xutba ba te ñoom ñaar ñu ko seq ñu firi leen ko bañ xam ko dafa naan dañ xam ne kon jël nañu engagement bu diis a diis ba wax mën naa am yàlla dana dawal ñu respecté loola ndax loola alxuraan ko wax te ginnaaw ay la ñu xamal leen ni li alxuraan ko wax ñoom ñaar ñëpp ñu xam ko kon mën naa am dañ gën a jàpp sëy ba gën koo wormaal ba caaxaan yeen duñ ko ci dugal Eh, ko ci bëggoon ci barke akuk sax man caa am wallaahul muwaffiq li sawaab kii day laaj ndax dagan na ci xale bu jigéen muy teewee jullig ajuma ci juma ji waaw jullig ajuma de dafa am ay sart ci kim war dafa am ñoo xam ne ni ñoom la war ka ci jiitu mooy bi njëkk biñ daan wax ngor ak jaam boobaa askor la war la ca tege mooy moo ko nekk ko am xel la ca tege mooy mu doon koo xam ne ku kàllafe la walul gone la ca tege mooy mu doon koo xam nekkul ci tukki dëkk bi mu nekk jumaa ji ne fi fii la dëkk kon la koy door a war wala boog mën a faamu ñeenti fan booba la koy door a ba ca tege sàtt yi mën na doon koo xam ne mën naa am am na kàttanu jóg ba dem ca àgg ci jumaa ji fa ñuy jullee mu jullee foofu kon da gis ne sàtt yi boole woon ci gone boolewuñ ci jigéen kon gone ak jigéen ñoom bi su ajjuma bu ñëwee ñu leen sant mooy ñu julli tisbaar bu ñu julli ajjuma ba noppi ñoom ñu julli tisbaar seen kër loolu lañ leen sant rawatina jigéen sax ne gone sax bu fekkee dem na ba tàmbalee xàmmee mën naa ne waajuram bu fekkee bu demee ci jumaa ji dana ko wormaal xam xam àqi jumaa du fa yàq du fa nekk di wax wala muy fo foom gone wala mu fay indi sobe soo xam ne waru faa nekk bu fekkee am na àgg na foofa ci sunu tamyiz mën na ràññee lu baax ak la safaan ba kooku waajuram mën na koo jàpp ci loxoom yóbbaale ko jumaa ngir mu tàggatu ci jaamu yàlla yu mel noonu comme niñ ko diglee ne muruhum bis salaati wahum abnaaw sab'in wadribuhum alayha wahum abnaaw asrin gone bu amee juróom-ñaari rek war nañ koo jàngal ni ñuy jullee bu demee ba am fukki at nag te te nanguutu julli sax waajuram am na sañ-sañu dóor ko ci ñàkk julli googee ngir loolu lépp bëgg mu tàggutu ci tàmm jaamu yàlla ba su màggee rek mu yomb ci moom li ko sëriñ boo xaji te sawdu saxaar ne bu ngeen nekkee gone na ngeen tàggatu ci jaamu yàlla ak lu baax bis bu ngeen doonee ma mu yomb yomb ci yéen jigéen nag moom dafa am condition yoo xam ne moom war a génn moo tax yu bare bare lislaam la koy teggil ndax ginnaaw teg na ko ay sart yoo xam ne dafa xaw a nuuru xaw a diis ci wàllu ni mu war a solo ak wàllu ni mu war a moo tax ñu jéggal ko yu bare bare bokk na ci lu ñu ko jéggal muy julli ajjuma bu ko defee këram mi du tee dana am tuyaaba waaye bu ñëwee ci jumaa ja boobaa mën naa am sax lu muy demee bàkkaar da ci jële ndax bu ñu delloo ci téere bi nga xam ne moom la Cheikh Sohay bu bind muy xuratul ayn gis ngeen lam ca tarale gone gu jigéen goo xam ne doonagul mag di dem ci barab yooyu nga xam ne mbooloo yu góor dañ fay daje moo xam ay jumaa la wala xeetu daje moo xam ne ay góor dañ fay nekk nee na gone gu jigéen goo xam ne nii da nga koy da nga fay dem kooko yaa ngi def njuum bàkkaar bu réeré boo xam ne boo war a tuub la bu dee màggat moo xam ne dem na nag ba xam ne ba ni mu ko waxee xubudu nga xam ne na màggat te it mu boole ci sol yére yu yamamaay te it bañ a laal ak koloñ kooko may nañ ko mu ñëw ci jumaa ja te bu ñëwee bu mu dem ca sàppe góor ya waaye na dem ca euh, maanaam ca ca fa mujj ci sàppe ca fa góor ña yam mu féeti leen ginnaaw te bañ jax soo góor ñi loolu daal lañ gis ci julli jigéen kon li gën daal mooy jigéen bu mënee jullee këram moo gën bu demee ba ko julli si jumaat dem ba àgg si at yoo xam ne may na ko la muy def loola mu koy doxa def waaye yenn melokaan yi mayuñu ko jigéen mu koy def di génn ci biir eh, biiru góor wallaahul muwaffiq li sawaab euh, kii moom day laaj ne koo xam ne nii ci julli naafila la ñëw fekk imaam bi raw ko benn rakk mu ànd ak moom benn rakk mm-hmm. mu ne bu imaam bi sëlmalee mm-hmm. ndax moom day sëlmale ànd ak moom wala boog day fay ak su dee fay nu mu fay rakk boobu kooku day daa war a fay ndax naafile moom nga ci gën a gàtt ñaari rakkaa lay doon naafile ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane mooy ñaari rakkaa ñaari rakkaa yoo def sëlmal ñaari rakkaa yoo def sëlmal ba keroog li ngay naafile jeex nga door a bàyyi waaye witr dong moo ci nakk benn rakkaa te xam ngeen ne sax witr bëgguñu nga ber ko moom rek julli ko moom dong waaye dañu bëgg nga jiitu jiite li ñuy wax safn safn mooy ñaar rakkaa yi nga xam ne ñoo koy jiitu nga door dafa al witr witr nag moom ci sunna yi gën a feddali la waaye moom rek moo ci nekk benn rakkaa ci xeetu naafila yi waaye mbooloom xeetu naafila bu mu doon ñaari rakkaa la war doon ñaari rakkaa yooyu bu fekkee da ngaa ñëw fekk ilimaan jiitu benn kon bu sëlmalee da ngay jóg indi rakkaab ñaareel ba rakkaab ñaareel ba nag bul jàpp ne bu dee comme taraweex yi ñuy def muy nafile koor yi nga xam ne dañ ci jàng lu bari ci alxuraan bul jàpp ne la ilimaan di jàngoon lu toll noonu nga war a jàng déedéet yow koy boo jógee jàngal fatiha rek teg cew saar lu mu gàtt gàtt daal di lu ko sujjóot daal di taaye sëlmal daal di dabaat ilimaan nag ca euh, ci taraweex bu fekkee julli julli nafile koor la kon loolu lañ ko def waaye néewuñu la bu ilimaan sëlmal yi da ngay daal di sëlmal wala bu ilimaan sëlmal yi da ngay jóg indi bu gudd gudd bu toll ne ba ilimaan jàngoon mu mel ne robo nga bëgg koo jàng te xëy na mokkaloo ko wala boo ko dee def man naa am ilimaan rawaat la kon sëñtuñu la lu ñu la sant daal mooy bu ilimaan ji sëlmalee na nga indi rakka boo xam ne nii moom ngay def rakkaab ñaareel bi def ko rakka bu gàtt daal di taaye sëlmal sëriñ wax na ko ci tasawudu si xaal wax ne aw jib alal maamumi an yaqdiya ma qad faatahu ala xalfa imaamin xuddima booy julli moom lu ñu rawee si julli gi rek bu ilimaan sëlmalee nanga fay loole bokk na ci loolu jullit naafile googu bu ilimaan sëlmalee nga war koo fay. Euh, jërëjëf xam naa dañu mujje laaj bi rek bi laaj bi kii dafa wax ne ndax ab jullit dagan na ci moom muy akolaat ak soxnaam ci bëccëgu weer koor maanaam jonjoog soxnaam ci biir ci ci diiru bëccëgu koor gi. biir koor loolu lañ li gën mooy bu ko mënee bañ def mu def bañ koo def. ndax dafa bokk ci nga xam ne nii mën naa yàq koor mooy bu defee talas dus bànneexu ci soxnaam ba am lu génn ci moom boobaa kooram lay dog te sax bu fekkee moo ko tey da ciy boole kafaara kon nag lu mënee moytu lépp loo xam ne mën naa indi ak kooram di dog mu moytu ko moo gën a bokk ci war may koor te bu demee ba euh, dog kooram nag bëgg ànd ak waa këram mu ànd ak ñoom waaye bëccëgu weeru koor yi moom li gën mooy mu sor yooyu yépp ndax mën naa am mu yóbbi ko ak koram dog te eh, loola gënut wallaahul muwaffiq lis-sawaab hmm. euh, jërëjëf sëriñ bi sëriñ Cheikh ñu lay dellu la sant ci turu daaira muqaddamatul xidma ci tontu yu leer yi nga xam ne nii indi na ko ci laaj yi rotoon ci jataay bi bàyyi ko ci mbokk yi kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom mu dëgëral la te kàttanal la ba nga yeggale si yéene xam naa kon dañ lay bàyyi rek nga indi kàddu yooyu tëje jataay bi kàddu yu tëje rek waaw ah, kon de ñu ngi dellu ñu di sant suñu borom subhanahu ñu defal tawfeex ba laaj yi ñu fi laajoon ñu jëm ci suñ kem kàttan di xam la itam tontu yi ñu fi indi rek ñu ngi ko sukkandiku ci ay ballukaay yoo xam ne wóor la waaye nag fekk moo doon xam-xam bu yaatoo yaatu bari ay wóote ci biir ba tax na li nga xam ne moo ci mën a gën a dimbali nit rek mu tënk ci benn masab su ko defee bu ci tënkoo rek jafe-jafe du am waaye boo bëggee def masala boo gis seet masab ba mu gën a yombee nga defee ko noonu rek da ngay daal def lu ñuy wax talfiq te talfiq dañ koo tere ci fiq mooy masab bu ne nga bëgg faa jël kon daal ñu gën a dellusiwaat ci masab bi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi dénkoon muy almasabul maliki yi te mboolem téere yi yim taalif muy tasawudu sixaar muy aljawharu nafiis muy tasawudu subbaan mboolem téere yooyu mu taalif ci wàllu fiq ci mazhab boobu la ko taalif kon nañu gën a siwaat ci mazhab bi gën koo jàng gën koo jàngal ndaw ñi bañ gën koo xam ñu gën cee tënku buñ ko defee suñ diina dana sell te buñ dajeeg sëñ bi mën nañoo am ngërëmam yàlla ñu ko yàlla defal di dellu di sant ñi nga xam ne ñoo taxawee jataay bi di sant jotukaay jotulookaay yi fi nekk muy média yi fi ceew di ko jotul suñ mbokk jullit yi nga xam ne ñoo nekkul ci barab bi te di ko déglu wala ñu koy seetaan ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ne wa kullu am wa antum bi xayrin di ñaan suñu borom subhaanahu wa ta'aala mu defal ñu ngërëmam te jataay bi ñu koo taxawee te kilifa yi ne suñ kanam muy sëriñ Afe ak ñi nga xam ne ñoo jiite jumaa ñoo jiite jumaa ji suñ borom sàmmal ñu leen bàyyi leen suñ kanam te liggéey bi ñuy liggéey mu defal leen ci ndam di delluwaat di ñaanal alxalifatul am mi nga xam ne moo jiite njaboot gépp ak Cheikh Sidil Muxtaar suñu borom sàmmal ñu ko bàyyil ñu ko suñ kanam te lépp lu mébét ngir bëgg koo liggéeyal maamam ji sell ja suñu borom defal ko taw yoo koo liggéey te ñu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf kon ñu fàttali ne waxtaan wi mi ngi doon jàll ci surtout daaira bi di muske Touba Poyo org mi ngi doon jàll it ci rajo jant bi FM mi ngi jàll tamit ci Lamp Fall TV ak ci Touba Vision mi ngi jàll tamit ci Mouride TV ñi ngi sant bu baax ñi doon teewlu ci jataay bi ak ñi nga xam ne ñoo doon topp waxtaan yi ci jumtukaay yooyu ñu tudd léegi kon suba incha allah dinañu waxtaane lu jëm ci bor bor ak atte yi mu am ci lislaam moom la ñu fas yéene waxtaane bu subaa ñu war cee ànd ak nag Serigne Mbacke Abdourahman ñu da ko bàyyiloo xel mboole mbokk yi teewlu kon bu subaak jàmm ci waxtu yi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.